di Dakar Animaux di site boo xam ne dafa spécialisé wu ci lépp lu jëm ci wàllum euh, bàyyi ma muy xar nag ginaar xaj yi euh, mbaam yi euh, bàyyiwuñ dara tey nag ñu ñëw fii ci Malika ci bergerie Bamba bergerie bàmb nag ñu bëree bëri bëri xam nañ ko ci wàllum yar ci wàllum élevage ñi fekk fi ki nga xamante ni moo di Talla Diop di di gérant bi nit koo xamante ni ku ku ku am xam-xam la ci wàllum euh, élevage rawatina li nga xam ne moo di laadum ñu fas yéene séq moom waxtaan. Talla ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax. waaw salaamaaleykum waa Dakar Animaux ma leen nuyu di leen ziar di leen kontaanee ci déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw fii si Bergerie Bamba di leen sant di leen gërëm waaw di kontaanee baax a baax Bergerie euh, ñëw bi ngeen ñëw fii si Bergerie bi macha allah. taala li ma xaw jaaxal rek moy ba do baye ba ay midi rek sa xel nek ci xar yi <laughs> gaay yi yi mom bu midi jotee rek do dootuñu gisat dara dañ lek rek <laughs> non gaay mom moom xam na ne njóobeen mom ñoy buru njaayeen ni lool mom xam na ko mom wa njóobeen mom <laughs> xar yi mom dañ leen may jam non njóobeen mom trang rek lañ xam trang rek macha allah jaajëf taala bergerie Bamba est-ce que mën nga ñu expliquer euh historique bi ça dit que euh, kañ la sosu ak lan moko kéré créé idée fu mu jógee waaw euh, ñun nak mom dañoo judd ci mouride hmm. du fekk suñu papa nekk murit suñu yaay nekk lépp di Serigne Touba Xaadim Rasul waaw ñu inspiré wu si loolu noonu ne suñu lépp lu lépp lu ñu am muy suñuy doom muy suñuy njaboot muy suñuy lépp lépp Serigne Touba lañ ko jox moo tax ñu jël tur tur ñu jël ku tedd gi tuddee ko turu bi muy Bergerie Bamba. waaw aide boobu lañ si am. parce que Bergerie bi boo xoolee mu ngi mu ngi sosu depuis 2009. Euh, lan sos ba léegi macha allah di si liggéey ay liggéey mucc ayib macha allah waaw. ok xanaa kon 18 moom am na fi turandoo. waaw eh, fina nak wax deug yalla produit yi fi jaar bari nan da ngay tuddé tour bobu côté gaay ñew ñëw foqate ko yobbu waaw mais amon na fi ay safar macha allah ay kawsara ay ay moomi waaw tour yu tur yu murte mo ngi ñu ngi dal <laughs> waaw. tay tay kan ak kan moo fi nek si ñi fi nek seen tour lan waaw fi ñu fi euh eh, ki ma téni moy muy moy mal bi nga xam ne en ce moment mom la di liggéey wala ak ay soxnam kii doomam la kii mooy madame Diallo macha allah ay ñom beti Bawo. madame Fall Miss ñaari tali mën naa ne sujet yi fi nekk ñoom moom élevage bi amul kenn kuy dund élevage fii surtout Dakar fii wala Sénégal fii te xamoo xar yi fi nekk. parce que xar bi si nekk moom macha allah jëlee nañ la fi la war a jëlee liggéey nga fi euh, liggéey mucc ayib ci élevage bi daal macha allah. souvent gars yi éleveurs yi dañuy faral di wax ne xar amur la. Euh, boo si amul amuur rek doo ko doo ko doo ko doo ko mën a def. Mhm. Euh, loolu nuñ ko mën a expliquer lu waral wax jooju. non amour la mooy imaginer tey nga yor somu par exemple tey damay gàttal rek nga yor somu 5 millions tey boo si bëggoon dem Europe mun nga see dem am na ñoo xamante ne am na jeunes yoo xamante ne tey nga te ku na xam ne yar xar boo ko bëggul mënoo ko def li ñuy lekk dafa metti toppatoo bi dafa metti tey ngeen ñëw si bergerie bi ngeen ñëw gis ngeen ne tàng na d'abord naam mais gis ngeen ne tàng na leen ay ventilateur kon tay xam na ne kii lii bëggul mëno ko def voilà lolé premier passionné bi quoi voilà euh, yar yar yar dum euh, ki la de moyen la dé non yar dum moom euh, bëgg-bëgg nga jël premier mais deuxièmement moyen la mom waaw parce que moyen pour xari yi baax en ce moment ni moyen mo koy def mom voilà moyen la quoi ban ban anecdote nga nga nga ñu mëna netali lo xamné dund nga ko bis ak ak ak ak ak ak xari yi mu mu marqué la waaw moy moy bama bama liggé bama jëlé xar yóbbu ko concours dam fek ak samay morom yalla def ma jël premier bon concours lolou ma marqué la woon. regroupement des éleveurs de la banlieue di ci nuy au passage président bi euh ak ñima dekkal fi muy Seydi lay ak wa Malika yëpp machallah euh, euh premier édition foire rep maa 3e meilleure femelle. yoroon benn doomu Abdou Fall jigen mo ma won ñenn sama benn jigen voilà deuxième édition bi ma jël premier benn femelle mi ngi fee ci deuxième box bi mu tuddu badjan jël première ci nga ñëw ci euh, catégorie femelle espoir ci 37 xar yalla dafa jël première loolu da ngay xamne ne ni machallah allah ndimbal yàlla nga ci way tamit jambar nga ci loolu momu gëna a sama élevage kan kan, kan ngay faal di parce que gis nañ ne bjr bi fiñ taxaw ni euh, ben box la ci ci ci ci yeneen box yi parce que amna amna am yeneen yu nekk ci ci ci souf mel na mënta nekk liggéeyu ben nit wa man nak mom bo xolé mom bo fi ñëwé sax euh liggéey bi moom man la ak sama ñaari booy yi Babacar ak Baye Ousmane waaw instant yi ñoom ñoo ñu ñett ñoo ñoo seq ñoo enclavé Bergerie bi daal voilà ñoo nekk di liggéey ak Bergerie bi kon kon yarum xar daal nekkul yëfi doole xëy na mais yëfu xol la daal yëfu bëgg la non première bëgg bëgg la deuxième moyenne la troisième expérience la voilà ñett yooyu moom moo moo moo moo ngànk yarum xar benn bi si manqué rek day feeñ

nga débuté ci ak yi nga yar buñ commencé jour nga jaay ñaar ñet dem jënd ben ben ben ben ben bax comprends nga idée bobu la jox ben un nouveau éleveur bo xamante surtout ma ñu amul moyen man toujours may wax ak ñom moy ngay jaay ñaar ñet dem jënd ben bu bax bu ko yalla défé bo si amee ñaar ñet buñ commencé produit nga am mal bu bax nga commencé dem ci yoon quoi voilà euh, laadum melokaanam lan la da ngay gis xaar bi man ma ñëwé sa sa sa sa bergerie bi ak par rapport laaj mi ma doon gis dafa am différence bu bare bare bare bare bare mhm. après laaj mi suñu xarit bi ñukoy koy nuyu au passage mané ko mais man xar li ma si yem moy li ma daan gis ñi koy wax laadum ak xar dañu am différence lutax mhm. lutax lool tax laadum lan luñ ko mën a xàmmee waaw euh, laadum euh xar la bi nga xamante ne race la bi nga xamante ne race la mhm. kenn xamul fu mu yam mais dafa am ay catégorie waaw mais ñun man man dal bima ci gëna euh, bima ci gëna satisfaire man moy bu am ñetti ñetti critères yi mooy bu njool gudd rëy. waaw bu am macération. voilà boo xoolee boobu en ce moment nii xarin fii coow yëpp loolu lañ dajale moo tax ñu leen di fii coow. kon tey euh, moom laay moom moom moom képp ku tey macha allah kooku euh, loolu lay wër si xar bi daal. loolu mooy un vrai laadum. ba am macération. ok gis nañ Xaadim euh, Xaadim mu ne moom lépp lu mu am xar moo ko may. Mhm. xar ndax mën na may oto bu oto oto quinze millions vingt millions trente millions ndax xar mën na may mën na mën na tabax immeuble. non xar mun na may lu raw loolu. laay xar mu na may loolu man man fi may wax yow ni man xëyituma fenn. Mhm. man damay nalaw ba 11 heures yeewu. Mhm. xar yi essence yi ñooy dundal seen bopp. di di ñu dundal waa kër gi. sant yàlla bu baax a baax kon tey xar mën na lu nekk xam na tey. Euh, am na am na si néeg yoo xamante ne sax boo fa duggee nii nii amul ventilateur. waaw sama waa la néegam bi amul ventilateur nee naa ko. daal ventilateur 24 heures sur 24 day tax fii Bergerie Bamba. vieux néegam bi boo fa duggoon tey jii néegu xar yeeg gën fuuf. non fii ba parce que parce que parce que parce que li ñu euh, teranga bi mu defal la. même bu dul dara nit ñu baax ñu ñu booleel ay homme de valeur ay nit ñu baax ñoo xamante ne da nga ciy xamante si biir xar yi tey boo xoolee siège yi ñu tegale fii chaque jour ay nit ñu baax dañ fiy ñëw yendu teg ci na ataay waxtaan ci xar duñ wax lu ñaaw duñ wax kenn lu ñaaw si xar yi lañuy waxtaan ba ngoon jot ñu dem loolu lañ neex na deuxièmement wax dëgg yàlla du na ama ama ama am na am nañ si lu ñu gàññ mais mu dul dara ñu ngi ciy sant yàlla waaw ñu ngi ciy sant yàlla sa sa sa sa ak yeneen yi euh, est-ce mi ngi am mu war a amee c'est-à-dire yi seen biir parce que wax nga léegi fédération bi bi nga xam ne mi ngi fii ci banlieue bi. Mhm. mais en dehors de est-ce que yaa ngi lëkkaloo ak ñeneen ñi nga xamante ni nekkuñu nekkuñu ci banlieue bi. waaw man moom sama élevage moom nekkul pour euh, banlieue kese. Mhm. man damay élevage pour fépp boo xoolee xar yi may jaay ci àll bi sama ëpp yi may jaay fii Dakar à Dakar. Mhm. parce que man dama mën a jàppale euh, un un jeune éleveur bi nga xamante ne moyen demewul noonu. man damay nangu sax li gars yi du nangu mooy jël ay xar ma xaalis mu jaay ko pour mën la jàppal nga am donte man bu may jënd dem di jënd damay jënd ay produits fini ñëpp xamee nan man damay jënd xaru cher damay jënd qualité mu qualité laay dox mm. tey macha allah tey boo ñëwee fi tey da nga fi mën a wàññi benn dizaine de famille bi nga xamante tey kenn benn bu si nekk euh, éleveur bu si nekk benn bu sañoon nekk sa mbaar mm. kon tey loolu dajale ko sant yàlla la ndimbal yàlla la xam-xam la moyen la mm. voilà tey doxewun ko waxewun ko lu dul tey un éleveur bu ñëwee wax la boppam noo a jàppale nga koy jàppale moo am na bu baax a baax connaissance baa ngi am chaque jour ñi nga xamante ni ñu baax des fois un jeune éleveur ñoo fi amul moyen nga may ko tëb mu dem bool laa nit ku baax loolu yëpp c'est des moyens yoo xamante ne day day indi ay link quoi voilà euh, prix xar bi gën a bi gën a yomb fii fu mu toll non bergerie ba am moom prix bi amul amul amul amul prix fixe amul moo tax ma ne xar yi moomuñu moom maa leen moom hmm. du ma def comme gars yi naan xar bi fii la yem ak yooyu noonu non non hmm. sans dépenser xar bi ak juddoom ak ni mel la ak ñi ko jur ak ak yow miy ñëw tamit hmm. lim la jaral voilà gis naa gis naa benn benn benn xaru ni Luc Nicolaï bu ndaw a ndaw buy door a judd. njën mhm. ñu ñu mu jënde woon ko 4 millions fii ci a judd 5 millions fii si Malika. Euh, maa ngi ko jëndee kër Diaw ak di nuyu passage Diaw Tranga. Mhm. moo jaay dañu doomu Tranga maa ngi jënd à 5 millions. moins de 4 mois. parce que loolu boo gisee ñu def ko nekkatul pour ñun quoi. Mhm. te yàlla dama leen suñu base de femelle ñëpp reconnaître na ko ñëpp nangu na ko. xam na ne xar baax fi nekk. il fallait nga jënd ay maal ndaanaan maal amélioré yi nga xamante ne mu ñooy yokk xar yi say nit yi fi ñëw wala ñu la choisir si biir élevage bi ñu bëgg a yar say sujet boo doon joxee sujet ñu gis seen bopp ma loolu sama résultat si élevage voilà yëkkati bu baax ko jox ko sama nit saa yi ma demee këram firi voilà sa sa numéro téléphone pour gars yi nga xamante ni parce que ma fàttali leen ko euh, émission bi li tax mu jóg site bi li tax mu jóg dañu bëgg gaa yi di jokkaloo éleveurs yi yarkatu xar yi di jokkaloo seen biir yarkatu xaj yi di jokkaloo yarkatu ginaar yi di jokkaloo seen biir euh, yarkatu euh, mbaam xuux yi di jokkaloo seen biir donc loolu moo waral euh, Dakar Animaux ñu ñu ñu lancé ko et vraiment que gars yi ñu ngi siy jàpp bu baax a baax baax ñoom itam ñu ngi siy abonné bu baax a baax a baax et que bépp nit boo xamante ni da nga yëngu si wàllum élevage ak lu mu mënti doon ñu ngi lay ñaan nga abonné ci site bi bleu cloche de notification bi. Euh, nga contacter ñu ñëw def ak yow wane liggéey ngay liggéey wane li kii euh, Mortalla euh, lan mooy lan mooy sa numéro téléphone boo xam ne gars yi la soxla mën nañ la si woo. waaw man sama numéro téléphone moo di 77 906 91 40 wala 76 870 91 98 boo ñëwee ba terminer si Malika da nga jël route marché bi wala nga ñëw ba station Malika boo ma woowee si numéro bi ma jël si la moo kër gi tout masha allah mais képp ku bëgg tëb ak lu mën doon daal bu la wooyee di nga ak màggal gi sax fi toll nii da ngaa war joxe tëb ak lu <laughs> non ñun gi dañuy bi fi di yomb daaw defoon na ñun suñu première màggal ñu ngi defoon ginaar deuxième bi ñu ngi def bëy troisième bi ñu ngi def xar daaw ñu ngi def nag ren dañuy def ñaari nag incha xar moom yàlla dootu nangu. macha Serigne Touba amul lu am Serigne bi la billaay wallaay te boo fi ñëwee jour màggal mhm. da xam ne euh, Serigne Touba du euh, <laughs> kun koy tëkkalee ñu ngi lay nax barki maam Cheikh Rafal billaay wa bisam moom lu si waay mën di ko si def tànk rek barki Serigne Touba voilà ngay wax jeunes yi lan ngay lan ban ñi nga xam ne nañ ne Euh, dëkk bi amul liggéey yow wax nga ko léegi nee nga da ngay da da ngay da ngay nelaw ba 11 heures yow xëy na na commencé woon foofu noonu parce que hmm. loo gis moom <laughs> da ngay yow fajar fanaan hmm. mais tey coono bi xëy na mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk looy wax ñu naan dëkk bi amul liggéey waaw mais grand euh, ji nga euh, Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom bu defaroo ñu ñoo koy defar bu yàqu ñun ñoo koy yàq hmm. jeunes yi yi tax ñu war a farlu góorgóorlu suba Sénégal suba ñoom ñoo ko war a téye ji nga nit tu yaafuus nit da am ngëm te da ngay am tawhid muy ngëm-ngëm te gëm ni suñu borom euh, yëfam du doxee maye da ngay jaayante ñun avant ñoo am lii ah dañ dañ leen loo xamante ne tey bu am na ñoo xam bu leen ko wax du nga gëm waaw fu na jaar nañ fa nekkoon naa seeraas jóge fa doon dem àll ba di dem ay lingeer di jënd ay xar di nga indi ay ngunjaan di jaayaat di jaay bisaab bu weex bisaab bu xonk jaay naa façon produit bi mu nekk mais dem naa ba dem na ba mel ba xam ne affaire bi laadum bi la nekk na phénomène bi nga xamante ne gars yi bëgg na ko te wax dëgg yàlla maa ngi ci gis bopp si laay dund di dundal seen sama njaboot si la ñuy dund ñoom kon tey loolu sant yàlla la képp kuy jeune boo xëyee lu mu métti métti métti amal si loo nekk mm-hmm. waaw te loo nekk yàgg si bu yàggee yàlla fekk si la incha allahu rabbi ñu lay bu baax waaw di la kontaane bu baax baax di fi nga di Bamba di sama yaay di sant sama soxna Maam Jaara waaw di mag yu ak yu gi Bamba ak ne waaw Serigne Touba rek <laughs> kase non ñun suñu lépp Serigne bi la waaw di sant waa Malika bu baax baax ku Seydi Lay Grand Badou euh, Lamine Samba euh, Mbaye Dieng Cheikhou Dieng gaa dal kulim da ngay juum waaw euh, di nuyu samay éleveurs yi mag yi nga xamante ne ñoom laa bokkal gi ñu baax dañuy wax def teranga bergerie Bamba bi ñenn ñi dañ may may tëb ñenn ñi dañuy waxtaan ak man ci wàllu xar ñenn ñi balaa ñoo def dara waxtaan ak man te loolu yombul mënoon si xëy yow si euh, xar parce suñu papa si la newoon tey lu mu tuut xar yi buñ si si lekk war nañ si lekk parce que dañoo judd fekk del ay xar xam nga tey des teg micro nit mu ne la damaa judd fekk sama papa nekk xar ñun suñu papa dara la newoon doon wàcce ay ay ay cent xar mhm. kon te kooku bu màggee ba yor bu yoroon téeméeri laadu mu waru bett kenn voilà ku si mel ne euh, Abdou Fall notaire dama koy nuyu au passage sama paa la Amadou Zak Diop ba waxaam Mamor borom atomique Tafa Diallo waaw euh, gars baax ay ñoom Balla Gadiaga mhm. dama dama si am ay nit ñu baax grand Céline Lili mhm. ñoo xamante ne man mënuma sax lim ak waa famille Cissé ñoom laay Cissé waaw ñi nekk ñoo ne ñu baax na ñoom jaaji jaaji Mbengue ak Baye aas waaw waalo waalo yi tey waaw waa ak waa Malika bi yëpp sama séeréer ñoom alaaji xam nga su ma limee damay juum wax dëgg yàlla moom man man man aw ma si xaar ma yàlla kenn aw ma si xaar yàlla kenn ay nit ñu baax laa ko seqal ay gor vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp en euh, bi si nekk xar xar dafa mel day boole nit quoi bien sûr boole bi mooy première parce que bu la boolewul nit ñi nit ñi duñ fi ñëw bay jënd xar yi parce que man xar yi lekk ma ko naanu ma ko grand mhm. seen produit pour nit ñi ñëw jënd ko fi léegi nag boo amul ak nit ñi jàmm am ak ñoom relation boolewul leen ñëw fii bay jënd xar yi connaissance moo moo moo moo connaissance mooy lépp d'abord ci àdduna lépp loo jafe boo amee connaissance ba rek mu yomb la ñun loolu la ñuy doxee suñu àdduna autorités yi nekk fii ci Malika ndax ñi ngi visité bi bergerie bi parce que pour man dama leen koy lancer message yéen autorités yéen politiciens yi nga xam ne ngi yéen ngi aspirer euh, communes yi dee leen xool initiative yi mel nii ngeen koy wane bi ko fësal bu tabaski jotee tam xarit wala lu mën doon ngeen ñëw wane fi seen bopp ay xam ne kat lii exemple la ndaw yi war nañ ko suivre bu leen bàyyi ba ba ba yëfi jógee ci kaw bu leen bàyyi ba 2 ñëw fi RTS ñëw fi France 24 ñëw fi ngeen door a ñëw door a wax ne booy bi ka sama booy la woon bàyyi leen loolu noonu dee leen ñëw ci commencement bi. <laughs> Ah. waaw non euh, ñun nag fii ñu dëkk moom. Euh, maire bi fi nekk muy Talla Gadiaga mm. sunu maire la. ñeen ñi sax nee na li muy nekk sa turandoo moo tax. Mm. dadi moom nit ku baax la. wax dëgg yàlla ñun fii la ko fekk man maa ngi ñëw fii Malika en 2006 mhm. vraiment fekk fi ay euh, laayeen ku si mel ne ñoom Ousseynou Laay mhm. voilà fekk fi ay nit ñu baax Talla Gadiaga mi ngi jàpp ci yi moom waaw Talla moom euh, wax dëgg yàlla mu ngi ciy jàpp wax dëgg yàlla moom mhm. wax dëgg yàlla sunu taalal la ñun wax dëgg yàlla ku ko xam-xam ne daa bëgg jur macha allah te day sonn si jur vraiment nit ku baax la quoi maa ngi nuyu wàlla passage sama xarit Ousseynou Laay Bili waaw Mortala Ndiaye

tay yéen a ngi ay jeune yi nga xamanteni ñi ngi nek seen ruq di liggéey ah ngeen di def li tay ah ide bu baax la di leen ñaanal rek li ngeen tàmbale ci bismillahir rahmanir rahim yalla na dam ba nek ay télé télé ci barke Seydina Muhammad ñun ñaan lan lan am ak xol bu rafet yalla xam gem gu ah, yalla xam gémm guy barkel te yàlla dimbal ñun ñun duñ jow duñ fenn fo ñu fekk liggéey nga ñu fekkee nek ci xari di jang alcorane di jamu yalla kon tay amna droit ñaan suñu borom moo tax mo na ñaan leen mo may leen comprendre nga euh, li ngeen def ni muy idée bi nga xamante ndaw yi nga xam si ruq yi di liggéey xamuñu leen ñu tax ngeen tax nit ñi di leen xam lépp loon si jublu muy lu baax yal ko yàlla ful si barke Serigne Touba si barke Magal gi ñu jëm waaw kontaan nañ bu baax a baax daal jërëjëf ngeen jëf ba beneen yoon